ñu fas yéene delsi sof ak yéen ci liñ sosoon muy tafsirul quraanil karim ñu baax sa jotaay ak yéen bés bu jot ci waxtu wi gannaaw buñ daaneeloon ak yéen démb suratul baqara aaya téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar fi borom bi doon wax ne fa man xaafa min muusin janafan aw isman fa aslaha baynahum fala isma alayhi li ñu tuddee testament te mooy ko dem ba ragal boppam ngir saw bee dikkal na ko saw bu dee ci feebar wala lu mel ni feebar mu def ak ndénkaane kim dénkoon nag séentu na ne aji dénkaane ji def nañ njuumte koo xam ne jeng walis dëgg la si njuumte wala tayeef muy ak bàkkaar ci dénkaane lu ëpp sulus wala jagleel dénkaane kuñ ko war a te jagleel mu waru ko ci loolu la inna laa xafur rahim foofu lañ daanal ak démb tey nag mu ñëw si yaa ayyuhal lazina amanu kutiba alaykum siyaam kama kutiba alal lazina min qablikum laalakum tattaqun xitaab gi te mooy santaane gi yàlla nga ko jagleel way gëm yi nekkoon madinatu mu nawara mu nekk lu wàcc mut mujj mat matale mbooleem jullit fu nekk ci àddina ndax sabab yi nusuul bi maanaam naa munaasaba bi li tax yàlla teg aay bi ci aay wees woon mooy gannaaw borom bi jàngale mbiram xisaas muy fayu mu teg ci mbiram wasiya lil waalidayni wal bi muy testament jëmee gi si ay way jur wala ay jegeñaay gannaaw gi ñu folli ko mu teg ci nag ay attee koor ndax wàllu gu njëkk yëpp jaanib ixtiqaadi wàllu pas-pas wàllu tawhid la doon jàngale waaye jaanib saani mooy gu ñaare gi nag commencé jàngale waaye ay at ay ahkam tasriiya léegi bi nga xam ne koor nag bokk na ci ponk yi ëpp solo ci ponk lislaam yi borom taar taar tudd ko ngir jaam yi préparé waccee ko manam wàcc ji ila manasilul quds ak maarijil muttaqin al abrar ñu wàcc wàcc waayu sell waaye ñu mëna a yéeg kay way ragal yàlla yu baax yi te leen yegge won moy koor koor gog nak buñ ko waxe ci loxo moy firi al imsak moy ngeebu rek fegu bo xol sayyidatuna Maryam waxana inni nasawtu rahmani sooman moy imsakan anil kalaami dama nisi tey sama lamin sama diggante sama borom kon foofu loolu lay firi istilana buñ firee koor moy al imsak an shawati batni wal farji yawman kamilan min tuluunil fajri ila xurubi shams waaye bi niyati taqarrub ilallaahi taala mu génnee lu bari su suñu waxee koor ci sharia mooy ngëbu walis bànneexu biir ak bànneexu awra bis bu mat sëkk bis bu mat nag mi ngi dalee fajar xare ba jant di sox mooy fu guddi tabbi mooy soog jant dana ko wax waaye nag ngëbu ci lekk naa nag bànneekoo bànneexu awra biir yëpp andak mu yene jaamu jëm ci yalla tabaraka wa taala deng koor gog nak fa am ay xéeti koor yu am am na koor ga xana koor ak farata la am na koor ga xana koor ak fay la am na koor ga xana koor ak nasir nasir moy lu ab julli warlu ci boppam te warul ko won ganna bu ko warlo nak alquran da koy top pour matal ko moy wal yufu nusuruhum awal mufuna bi aadim isa ahadu jàngoon nañ ko dembu yalla ngay bak di tagga way matal ya xana sun ne borom wala sen moro wala sen bop dañu matal kóllëre ga ñentel ga moy kooru kafara ku rey nit anu fimu toll dañ ko lo mu hor ñaari weer ki siyaar ak jabaram dana kafaara ana fu mu toll mën a ko woor ñaari weer ki dagg ci bëccëgab koor te tay ko gannaaw bu mu fayee lam dagg ba pare dana kafaara woor ñaari weer juróome bi mooy koor ak coobare mooy li ñu tuddee an naafila mooy koor wax ni ko def rek ngir tabarroo mooy tatawon koor koor ak farata ci weeru koor lañ koy def ak saxam di farata sax na ci alquran ak sunna ak ijma benn borom xam-xam ci àddina bu contexte indi ak diigan ci ne weeru koor du wareef ñaare ba koor ak fay mooy koor goo xam ne ak julli war na ko jooxe ngir ak dog goo ko dab ci biir weeru koor ngir ngànt te alquran dana ko wax léegi tukki wala feebar moom la borom man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayaamin uxar kooku de day dem tukki la wala ngànt ak feebar taxoon na koo dog koor ak nisir nag moo li ab julli waral boppam ngir jaamu ko yàlla tabaraka wa mu waree nam ko nisiree rek Nisir hor ben fan wala ay fan yu daañi ree loolu moo la war fekkee da ni si jooyal ko rek ñi atté ko alal itlaq den koor goog nag gisee muy nekk waref waref gi mooy ci biir matal nisir sa lay dana lu war alquran dafa wax ne wala yuufu nusurum koor ak yu dugg kafara li mo koy wara dok ba ci weeru ko ta tay ko ci lu dul da ngay kafara sa yek sa soxna ci ba ci weeru ko tay ko da ngay kafara togo len ci luñ téré ci waxtu armal fi nga armale fi nga yewé ko def tawaful ifada yen ni amna ci yo yoo xam ne boo da ngay kafara deng ak ki def tamattu wala mu def xiraan kattan te amul kattan mën a def hadi man na xoor xoor ga nek kafara ga deng nga ba mu jeex ray ray njumte ak lepp luy njumte dana tax nit woor woor kafara war wax man qatala muminan mutaamidan wala muminan qatan tahriru raqabatin mumina wa diyatu ila ahli bu demee ba lot ci lo joxe man na mën teñu ci ngeñ dana tax nit or ci kafaara har alqaarun lazina yuzharuna minkum min nisaihim thumma yaudun lima qalu fatahriru raqabatin min qabl yatamasa kon li moy tax kafara war nit nak kafara xaaram mën na ko defee koor bu fa yeggee koor ak coobare mooy koor woo xam ab da koy jooxe jaamoo ko yàlla tuwaar ko temps la sopp nañ ko nag ci fan yi di ñëw bu dee bisab arafa ku nekkul màkk sopp nañ mu def ko bisab tamxar fukkeel ba fukk juróom-ñeenteel ba mooy juróom-ñeenteelu fan ba ak weeru muharram yépp juróom benn fan ci weeru korité gannaaw bu ñu waree ba pare al ayam biit mooy fukki fan ak ñett fukk ñeent fukk juróom ci weer wu nekk sopp nañ ko ko or koor googu tatawoon la coobeer la or altine ak alxames semaine bu nekk coobeer ko ko man bëgg nañ ko or ci luñ tuddee al asuurul al xurum ko ca xeex l'islam joxal leen valeur gannaaw ba leen jaahile joxoon valeur muy weeru digg tabaski tabaski tam tamxarit ak wéru rajab or juróom ñenti fan ci weeru tabaski boo may dalek bisu ñëk ba juróom-ñeenteelu fan bu yëpp nga or ko yi ay koor la yo xamne koor yi sopp la ay koor ko nak nag wu la koor nak leg la ñu sib ko fekkee dafa am ci anam yi di ñëw bisab aljuma ku koy wétal takko ko rek di or sip nañ ko bisab samedi wétal ko takko ko rek di or sip nañ ko daa am addis bu baax lañ bëgg moy nga jokalé aljuma tek sa samedi wala jokal alquran tek sa aljuma waye aljuma rek mom kenn wala samedi rek mom kenn nga bëgg ko def sunna nak lañ sib dappetew koor trop sib nañ ko jamono rek nga bëgg koor yéen sal dana koor gi gën ci koor yi mooy koor daawuda ga daan oor bis dagg bis li bëgg mooy daan oor di noppalu oor dana araam ci fan yi di ñëw ñaari ayet bisab tëbas bisab korité lu woor woor nekk jaam yàlla gu far araam na fa mutlaqan bisab sikk sàkk mooy fanweeru fan ci weeru chaban dégg nga dégg nga am ci làmmiñ nit ñi si gis ak weer ba ñàkk a gis te saxul dégg bis bobu araam na kenn du ko or ben ayyam tasriq mo ñetti fan yi top tebeski fuk ak ben fan fukk ak ñaar fuk ak ñet yo tebeski araam na kenn du ko or ba moy ko def tamaton te amul hëdd yi ma ko mu or ñaarel ba ñettel or ak jigen ko or nafila te jëkkëram a nga tew ànd ak mom te amul ndigalam koor go araam ko li moy mooy koor ak li nga xamni amna ci ci ay tafasil ay gàttal cheikh ramadan weeru koor moy fan yooyu lësi mooy weeru nga xam ci wàcc ni fi alquran alquran bàyyi ko loolu mu wax sama dunya ci guddile lay taqadri ku dan bi mu nekk njub buy gind jëlee ci réer yóbbu ci li naas ñeel nit ñi leen ci réer indi leen ci gindeeku wa bayyinaatin mu doon ay leeral mbir moom ay aaya yu leer nañ ñi la am minal daal di gindi nit mooy lan làmboo luy gindi yóbbu ko ci dëgg ci ay atte mooy laala moom njub la min minal bayaan minal hudaa laala moom njub la mooy luy gindi nit yóbbu ko ci dëgg ci atte wal furqaan laala moom liy teqal diggante dëgg ak ngeen am na ca mu aatu xaas la xam ñu xuddaa mu yoon ci biiram mu ne fa man seede képp ko teye mu ngi ci yéen ashahra weer fal yasum na ko de wa man kaana ku nekk nag mu dabaata ngi bañ fan dañ ko folli ci yéen man da aj ah, dagg na watt lam dagg woon ci lim ci fan oxor yeneen am na ñenn ci borom xam-xam yi baatin yi sew firi ñeneen ay li bëgg mooy na faratal naa ci yéen koor laxalakum te taquna balaa koor a jeex ngeen mat sëkk ci ragal yàlla set necc ci ñëw téef ak leneen ak leneen ñu ne ki sàggan nag ba weeru koor wa jeex fekk am lum dese lu démagutoon ku fexeddun ayam uq na dabaatal ci or ci yeneen yu du weeru koor ku tax koo koor bu yàggee koor seetal la wecc loolu bëgg mooy fexeddun ayam uqar ñu ko fi doon firi biir man yu dafa nam allah yal bi kum ci al yusra ak jappandal wala yu nam bi kum ci al hasra jafeel de tibaax tadaadi la wala tibaax tibaax sald sald yal lim nam ci en yi moy jappandal ak jafeel mukk loo tax mu dagal na leen dog fekkee feebar nga nek ci tukki mais firim ñen wala sax su gant gànt wala banex yu wute bakkan ba tënk la ba tax weeru koor jeex ta sa préparation mërutoon la waron set surtout da dabaatal ko ci yeneen fan takol or lay te nga set wecc wala tuk mu lu ngi ngeen al alxaydata limu weeru koro wala ba ngeen mag allah yalla fa matee alama hadaakum ngir li leen gindi teg leen ci màndargay diine mag ak ma takk biir raxet am wala aleykum ndaxte leen taskurun ngeen mën a gërëm yàlla sant ko ci loolu léegi nag am mbooloo ñoo si yonent bi saa aay bi di ñëw am luñ ko laaj nag suñ borom ndax dafa jege ñi mën a diyaaleeg moom wala fa sori ñi mën koo joor ñu ne laaj bi même bu fekkee saxaaba yi ñoo ko laaj yoon saa du ak réere ndax yàlla set na sell na wala jege jege yëkk melokaanu mindeef la te yàlla sell na walis lépp li melokaanu mbindeef loolu tax kon xel yëpp dañu ànd gëlëm ci buntam yàlla boobu kon ihaata gi nga xam ne peeg na ko moom yàlla peeg bi mu peeg mboole mbindeefam ak soppandi ko ci biir mindeef lu ko neex loolu moom lañ ko mele lay jege ihaatatullahi bi jamee xalqi wa tasarruf fihim loolu la ñu tuddee alqurb mooy jege ga dégg nga qurbul maxiya la muqantana suhi nag maam set gim set sell gum sell sori gum sa walis melokaanu way sos yi mboole seen moom lañ koy melalee sori ndax melo yàlla yëpp taw xiifi la dañ ko tënk yamale kenn du ci yokk kenn du ci wàññi dégg nga moo tax kon fal masul anu la ñuy laaj ñoom mooy al qurb awil bond al mahnayaani jege wala sori yi nga xam ne maxanaa la waaye du yëg-yëg waaye bu doon jege yëg wala sori yëg ay saaba di ko laaj ni kon yàlla dana leen ŋàññi loolu moo tax borom bi ne isa saalaka wa laajee yow Muhammad ay bàyyi samay jam xam ni ci man bi nekkoon qaribun aji jege laa si ñoom sama xam wax leen loolu axbirhum bi zalika xamal leen loolu jibu mandarga ma damay uyu daxwata daay ooteeg aji xoote isaa daxaani bu fekkee oona ma ci may ko lam doon tax muy oote muy ñaan ak ñaan su ma ñaanee la ma doon laaj moo uñu ko jox ko ko dégg ñeneen nag féeg laaju loo xam ne mooy yàlla la wala dogoog mbokk waaye ñaan ak aji ñaan nangu ko moom dëxal ab yàlla toi te yàlla ab kon fa lay sa jibu lii nañ ma xuyu si di ma xoo topp ma nañ ma topp di ma xoo wala yi minu nañ sax ci gëm biyee ci man laxalu ndax te la ñoom yar su ñu mën a gindeeku ñu mën a gindeeku mën a uyu la dagaleef na laa kum ñee leen déej déej mooy al ifda mooy gëndale ko mooy jotee rek ila nisaayikum seen i jabar ci sëy mu tuddee ko beej ci naayalee ko ndax la mu indi ilaa nag ndax mu la maanaam al la mu wax ne fa la maa taxashaaha xamalat xamlan xafifa ak fa atu harsakum anna shitum fal aana gi moo tax day legaar ak ba wax dañ koy xodd njëlbeenu lislaam la wàcc da doon folli la fa nekkoon ndax xoor boo xasaan def ni lekk ak naan di araamee gannaaw bu liggéey passé noonu la sëy di araamee ba ëllëg ci waxtu woowu borom ñoo di àdd mu ne xun na ñoom jigéen ñooñu libaasun koddaay lañ lakum ñeel leen comme koddaay lañ ci yéen hmm? wa antum yéen tamit libaasun koddaay nga lu na ñeen leen mu kinaayal ba tey doqante gi ñaari way dencanti mën a doqante comme ni koddaay di lambug jëmm ñu mën koo lamboo ci la neex yàlla tabaraka taala mu légaaree ko nag ne yéen yéene seen ay ñoom tamit ñooy seen koddaay comme li wax si beneen aaya rek min ayati an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha ci kawteef yàlla si la bindee seen biir ay soxna ngir ngeen dal jëm sa ñoom wa jaala baynakum mawata wa am leen gi ngeen muy cofeel ak yërmaane yépp mu ngi kinaayal rek wàllu dagan ak jaxasoo ko dégg li tax mu njëkkee nag hunna libaasun lakum njëkkee jigéen ñi mooy sakku booloo li gën a not dégg nga ci góor lay bàyyeekoo jëm si jigéen moo ëpp yéen sansam ne ne jigéen ñi donte jàmm amul ci ñoom it kenn mënu leen fee bàyyi dañu not ku tedd joggi ko waaye fukk bon bàyyeekoo ñoo not leen joggi leen mu ne man dama bëgg nekk ku tedd man ñi may not waaye bëgguma nekk man ku bon bi leen not Hakim daa waxoon ñett ngi même buy dëgg nangu ko jafe na jigéen gu nangu mbaa ko gu jëm même bu ko xamee dana jafe loolu mu nangu jigéen gu nangu mbon doomam même bu ko wóoree doomam bon na it sang sang defar laxas nangu kenn wax ci moom dara waaye ba tey jigéen gu nangu wilaay ak jëkkëram ak mbaaxam ñett yi mu ne même bu dee dëgg lu leer nangu ko day jafe ndax la yàlla dogal ci diggante moo tax kenn ku ne si ñoom daa soxla jëm ci moroomam mu ne kon ay ko daayante mu ne alima xam ne allah yi àlla ko nekk ngeen tax taanu daan xor an busukum seen bopp di boole ñoom ko teer woon ndax wa bu baax mel xor ibnu xattaab radiyallaahu anhu gannaaw bu ñu jullee gee ci jàkk ñibbi dem këram fekk soxnaam moom bi mu xëy ñëw nii ci yontu bi sallallaahu alayhi wa sallam rek ay wàcc mu maa ngi jégul maa ngi jégul ci yow ci yàlla ndax am lu ma dal ci guddi gi wàcc ñu bëri ci mbooloom jóg na ah ñu te wax di yàlla dal daan daan nañu dal de ay wàcc na kon li am mooy xaaral ma oyofal yuridu llaahu bikumul yusra wala yuridu bikumul moo tax al'aan xafafa allahu ankum yàlla day oyofal lu ko mel moo tax alima xaf al'aan ku nekk ma tax daan xor an sum seen bopp de ci sëy da ko tere waaye mu di ngàntalu jéggul yéen saa salaam fa taaba nangu tax aleyku njëkk si nag tuub sax dañ koo tawara yàlla wàcce ay waa mu jéggal an kum wajen kon fal aana léegi basiru na jonjoloo nag ñoom ci sëy kinaay la ba tey sëy leen la bëgg wax rek waaw toog ngeen sàkku maa katabal yi nga a la si na amanu yi nga xam ne gëm ngeen kutiba farataaleef na aleykum seen asiyaamu koor mu indi tasbih kama kutiba comme na farataaleef kan la si ñaa xam min xalikum yu jiitoon ci ay xeet niñ ko farataaloon si xeet jiitoon ak seen yonent yàlla ko dalee ci aadama ba si yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye tasbih gi nag ci fardiya la mooy ci wareef gi waaye du kayfiya du ci yool lu ci hikma yéen saa sallam aw xeetam ñu or comme nak xeydi jitu daan woré moy na farata la rek la way ni ñu horé ak nañ leen di fay bokut lolu bëgg wax moo kon nag furd asiyam alaykum kama furd al ummi qablakum tasbih gi de nek tasbih mursal mu ci man dégg laalakum ndaxte leen ta taxul nga mëna tet moy yàlla ci koor ndax koor day dama banex day damu bànneex yéen tuwax na si hadis ne xëy yéen ndaw ñi ku ci am kattanal denc soxna ko denc ci feere may la si aju ku mën a taxoo koor dana damu ay bëtam wattul ko ay xawram dégg kon koor day dog bànneexu bakkan moo tax ma ne la aleykum te taxu ndax koor ga jural leen ngeen mën a teet xeeti mooy yàlla yi ma dos diggante taqawaa koor googu nag mu ne ay yaaman ay fan la mu nasab ko parce que suumu ay yaam la bëgg oor leen ay fan mu maxdudaat wala ci waxtu wuñ ko yemalee mooy weeru koor li tax mu néewal ko nag tas yii leen alal mukallafina fa bëgg ñu mu tiiti seen nopp yin daawoon a bashiru wala tunafiru dee leen waxee da ca dawee kon mahdudaat lim na ko néewal ko ndax lu mu bëri bëri matul ñeen fukk yoo tam nekk mahdudaat dégg nga yéen sàll dafa wax ne borom bi am na seen fan yi jamono yi ay bonni may da leen ko gaarulu moo tax ne kon ay am mahdudaat ay fan ñu lim limité ko la wala ñu ne fan la yoo xam ne yàlla da ko lim de sa xadu ay ay xataa yaa rabba ay may yàlla yu wàcc si mbindéef yi baax yëpp daan ko fuglu daan ko préparé mi moo tax ay am daat mu ne fa man kaana ku nekk min kum ci yéen waxtu wa koor di teew may daan di aji feebar ala safa nekk ci tukki mu def li ñu aw ala safa fa aftara loolu la bëggoon képp koo xam ne feebar tax mu dagg kooram wala tukki tax mu dagg kooram fexe da tun war na ko mu fay lim lam daggoon min ayaamin ci fan uxar yeneen ba tey ija sas fu la faal lay xaddatu ma aftara waaye min ayaam uxar yooyu xoor wattee ko waaw les ne war nañaa xam ne yu tiw xoonu fekkee borom jalaal nee na mënuñ ko ngir mage wala feebar boo xam ne yaakaaruñ ak wéram yenn ci mu fas ne déet waaw les war nañaa xam yu tiw xoonu même buñ koy man it kàttan ak lañ koy defee fi deetu njot njot ñooñ mën nañoo njot dégg nga jalaal moo nattale laa yu tiw xoonu mooy mënuñ ko suubaa day njot ko màggat mu dem ba mage aji ëmb aji nàmpal dégg nga waaye yuti xuunu téer yi des ñoom mooy yuti xuunu dañ ko man waaye ànd ak coono bu métti métti ko màggataay ga wala ëmb ba wala nàmpal ga yi si aju nga xam bu ñu koy defee coono bu rëy lañ koy defee ñooñ la wax ñooñu nag fideetuñ jot dégg njot ga mooy la mu ne taam miskin ma leen miskin kem lu mën a lekk ci bëccëgu koor lu ko mën a suur ci bis nga defee ko ci lu not ci dund dëkk ba nga ne jeex ndax ñu ne déedéet sax yu tiixoonoo gi même ña ko man ba la neexee ñi jotu bañ a oor loolu nag njëlbeenu lislaam koor dafa nekkoon ixtiyaari mooy facultatif njëlbeenu lislaam ba la neexee nga oor ba la neexee jotu watee ko koor ga waaye gannaaw ga nag yàlla mu indi benn aay ne fa man shahida minkum shahra falyasum mu folli ko nga xam ne oor nekkatul lu ñu tànnaloo mais far force oor la Ablaye na Abbas ba mu may ki ëmb ak ki nàmpal bu ñu daggee ngi ragal seen doom ñoom de day des ci ñoom su fëlluñ ko seen xàq mooy dañu kon di jot ba daan fa man sa tawaan képp wax xam coobaru na xayran yiw mooy dolli kem bañ ko waxoon mu jote ko suñu njot foofu moom coobari googu mu coobaru ba dolli xayruma gën fu lu ñeel ko de waaye su mu ngeen xooroon xayruma gën làkkum ñee leen ci dog ak di jot ci kay tukkeeg ñëpp su ko mënee in kun fekkee nekk ngeen taxam dooy xam ne moo gën ñee leen kon def leen ko de mu ne fan yooyu nag yan fan la fan yee ñu or من شهر رمضان وير كور ما يفني يور وير كور ما يوان وير من الذي ما وير أن أنزل وجهنا فيه من القرآن القرآن ده بيا كوتش لول محفوظ نيو السماء الدنيا قد يكون تد ليلة القدر رمضان ما وير كور ده فلق إنجيل باتب القرآن رك بسيا الله وجه ده فلامو إعجاز نحلمي في لغة ما القر ما يودج لمبول من يكون تيري وينجك ويمجب أم بول من الصلاة أدنى الآخرة أي أخبار قيبي أيب دكتور تنكو بولك ما تدك القرآن شريان القرآن ما يكاد يالله وجه yonent bi ak jaamu yàlla la saar wa gën a gàtt si alquran tën a mbindeef koo def fawtu bi hadis mi misil yi mënuñ ko ñaari ngëneel yi weeru koor làq nag kaw weer yëpp mooy wàcc gi wàcc wàcc ci biiram ak amuk laylatul qadri ci biiram laylatul qadri ngi jëlee alquran ci lawul mahfuz indi ko sama dunya fiti ko malaaka yi nga xam ne ñooy yor registre yàlla ñu bind ko seen téere ya comme tartib gii mu tëddee ñu denc ko néeg bu ñu tuddee gannaaw ko nag jibril ma ko dénkaan di ko jëlaat ci sama duniyaa di ko indi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci diiram ñaar fukki ak ñett teqale ko xasabal waqaa'i comme événement yeeg xew-xew yeeg asbaab bi nusul yi kon jibril ma ko ñëwaat di ko jëlee si ñoom di ko wàcceeyaat gis bu baax de kon ibtidaa ga imlaa la woon li safara mais intihaa ga ak talaqi la an dégg nga an haa léegi njëriñal alquran wàcc nag dekk luñ teqantal mooy bëgg mu sax ci xol yi ne la nuzila alayhi qur'an jumlatan wa yutir alquran wàcc benn yoon borom ne kadalika maa ko wàccee teqale ko bañ ko wàcc benn yoon li nu sabbita bihi fuadak ngir mu sax sa biir xol ñu saxal alquran joola ak dalu xol mu dak dal sa biir xol ndax wax laa taxarik bi lisaanak li taxajale bi bul yëngal mukk ca làmmi di njëkkalante inna alayna jam'ahu wa qur'an ñoo koy dajale ñoo koy jàngal waratal na tartilan mu ne ko laa yëtunaka bi masin illa jinaak bil xaq amul lenn lu lay jëm a contexte lu ko jëm a dingatee lu rek alquran ne na cëpp indi lay dëgg ba ahsana tafsir firi ko firi gu leer kon benn la ngi noonu ñaareel ba mu ne wa saa tuliyat alayhim aya aatu zaadathum iman wooyu lim mooy gëm yàlla ya suñ saa yu alquran wàcc bu ñu ko jàngee seen ngëm gën a yokk gën a leer ñetteel ba wa quraanan faraqnaahu mun alqar maa ko wàcc teqantal ko li taqara aw ala naas nga nga jàngal ko nit ñi ala muksin ci sax nga xam day sax du demati wa nasalnaahu tansilan guddi gu mu wàcc nag alquran wàcc mooy guddi ñaar fukki fan ak ñeent dégg nga bokkatu guddi laylatul qadr wàcc la ci biir weeru laay waxut guddi laylatul qadr wàcc guddi laylatul qadr nag ci biir weeru koor la nekk léeg-léeg mu a tuxu borom ko wax nañu wax yu bëree aay biir ñeen wa kullu wasrabu dafa wàcc ku ñu dee saramatu ibnu xays yi fakk tëdd la woon tool yi rek ndeysaan tool yi xaw a dëkk bi lool mu oor dem tool ngoon jot mu guddee wàcc lool ñib si ñëw fekk fa ñam mu mën a jëfandikoo mu sonn tëdd far nelaw gëf ko ba mu yeewaat fa jaa xar na ñam yi door a taaje mu sib koo lekk ngi ragal yàlla taaru ko temps la fanaane noonu continuer xëy dem tool bi digg ba tëdd jot tàngooru jàpp ko xiif mu daanu xëm ba mu ximili ko ñu si yónni sansam nettali ko li ko dal nag ay wàcc wakulu lekk ngeen naan guddi gi parce que moom boobu naam waxtu xaruk fajar dëgg-dëgg fa mu war a bàyyi jotut dafa teel arata xëddam foog na ne bu lekkee sax xataa yeta bay na ba biir feeñ tàng la weex tal na faj laa xaruk fajar la de parce que xam a firi alxaytul abyad mooy rëdd wu weex bi min alxaytul aswad ñu ne laataam wax ne ma ngeen lekk di naan rek fee yéene xàmmee wëñ gu weex ak wëñ gu ñuul bu jël ñaari wëñ gi weex gu ñuul teg leen di lekk tey naan rek mu ngi xool mënagu leen a xàmmee rek mën a waxtu dagg xëdd arrêté gud alquran di mënal fajar loolu mu ne mu ne bayaan ci naaw ah la laa moon fajar laa wax kon du ay rëdd yi wëñ wër fajar su ma gannaaw ga nag atti mun na ngeen matal ngeen arrêté lekk ak naan fa xaru fajar dëggoo dalee asiyaama ko dalee ko fa xaru fajar la léegi bi guddi la léegi mooy tabbi guddi mooy fa jant soxee wala tubaasinu bi lañ jonjog jigéen ñi mooy soxna ya mutlaqan guddi wala bëccëg wala dégg nga guddi wala bëccëg laa tubaasirun bokk toog koor de loolu fan la wa antum mbir moom yéen waaw xaal xaakifu xaakifu ngeen way sax sa jàkk yi ci yéen ak jaamu yàlla ngeen way sax ci yéen a jaam yàlla fi masal ci bi jàkk lu ñu tuddee intikaaf képp koo xam ne ci yéen dafa génn dem nekk ci intikaaf beru sa jàkk ja kooku tere nañ ko séegi jigéen guddeeg bëccëg jabaram sa tax ñuy wax nag waxuñ lu jaw jabaram même guddeeg bëccëg yépp intikaaf bokk na ci li ko yàq sëy luy guddi wala bëccëg ak nuru sëy mooy làmb jigéen ci yeneen ya bu dul anam ak yonent yi jàngaloon itikaaf jëf la joo xam ne dafa ko ci nawaafil xayri yi dolli nit ak yiw sax ci jàkka la ab diir bu ñuy raaj la si gën a tuuti mooy bés bu mat sëkk la sa gën a bëri mooy fukki fan la ci gën mooy da ko ci fukki fan yi mujj ci weeru ko lu yéen sàmm daan def borom na tilka at yi mu tuddal la wax des sa ay at jangale hudullahi xududullaay dayo yalla yi de suñu ay jaamam ngeen ñu yam fu sekk bañ ko romb dégg fa taqrabu len ko jege mukk xibaar bu rafet la indi fa taqrabuha moo gën a mën firi wax ji ci mu leer ci la taxtu bu len ko romb ndax ku yëggu do do do laal sa kadrom borom kasaalikum noonu nun yalla lii li bam leer nañ yu bañ lay biral allah ya ayati ay am naas ñeel la alum ndax te la ñoom nag yattaqu ñu mëna a teet yi yalla aramal baye ko bañ sa yegg def dégg bo xolé ay yi ay fasaha la aay am ay deg deg la ndax na libasul lab wa antum libasul lu limal ci waxon ci isti'ara ba ba ci nek dafa nurule kumu si ñaar way dencante ngi lami lambo ak morom ci doqante tappoo comme day ni mi ak aju sol day la ci anam yep ni talxis bi an la ko jangale nañu jegaante ñom ma nañu lambo wante mu nurule ko deng ci si jaxasoo mbalaan ak jëmm kon ko day la moy isti'ara lu may wax wàññi ay am na ay dégg mi njëkk may xasan soloo nañ jëlee ci moom mu ne borom taatan farataal na weeru koor ci yahuudi ak nasaraan yi ba yàlla farataale si ñoom dañoo bàyyi weeru koor wi di xoor benn fan ci at mi ngir wax ne fan boobu ca la yàlla labaloon firaw na ci géej boobu la ñu xoor njotoo ko ñoom pare nañ si uuruñ weer mooy yoon nasaraan ñoom xoor weeru koor bañ ko defee ne mu tàngoor mu mu dajjeeg tàngooru métti ndax sa ramadaan lu ñu mooy tàngoor ramadaan mooy gilit matt gilit ñu jàllal bi ko soppi ko seen bànneexu bakkan yóbbu ko foo xam ne arrangé na leen waxtu woo xam du soppeeku moo tax ñu heure or heure sedd rek dégg ñu kon nag changé nañ ko yàlla weer la waxoon weer fa tàngoor ñu soppi ko indi ko fu sedd nañ ci yokk fukki fan dégg gannaaw bu ñu demee ab diir seen benn buur feebar feebar bu métti ni si juróom-ñaari fan or ko bu ko yàlla mayee ak weer ñu yokk ko ci nekk xam nga weer nga teg fi mu nekk ñeen fukki fan nga def juróom ñaar gannaaw seen beneen buur ne waaye ñetti fan yi lan moo dox si diggante ma juróom fukk ñetti fan nañ ko yeggali mu madaay ñu fara yeggali ku mat juróom fukki fan wa ruhbaanahum arbaaba min dunillah seen fóodee seen labbee lañ jël def leen ay yàlla bàyyi yàlla fu mu a yàlla soxatu lañ nekk tadaoha ma katana alayhim ñoo ko sos kereel ko seen bopp ñun seen yoon nekku ci ñaareel dégg xaafis ibnu kasir wax na ci aay bii nga xam ne day poussé jaam a saat ilal ittihaad fi duha day gindi nit ñi soññ leen ñu mën a ittihoo góorgóorlu si ñaan yàlla tabaaraka taala fa weeru koor matee ak fa ñu dogee yoon sansam ne or kat bi am na ñaari mbégte benn mbekti bi bu demee ba dog jot ndox ma ba bu bëccëg ba ngoon ak ñam wa lépp tiim ko dagan ko leew ko lool yàlla gërëm ko na mu seddee xol loolu mbégte la waaye bu ëllëgee nga xam ne ko yàlla di fay waaye mu ne it or kat bi fa muy dogee am na ñaan goo xam ne daawatun ma turud ñaan goo xam ne lu mu ñaan yàlla nangu kenn du ko delloo moo tax Abdoulaye Noxam bu daan dog moom bokk na ci ñi nga xam ne daaw dog lu daa teewal masaakiin yi ak ay taam yi ak foqaraa yi bokk ak ñoom daaw da taay loolu daan def dégg nga Maalik ibn daan def ñu bëri ci saxaaba yi buñ daan oor ba ngoon jot ñoom dañu hut ñu bokk seen ñamu dog ba ndax yéen sansan li mu wax rek ci dogloo aju xoor ndax képp ku ko def hadis ba deen Xaalid ibn Zayd al-Juhani moo ko nekk yéen sansam nee képp ku dogloo aju koor ci ñam da nga am ci tiyaaba jam am ta du wàññi ci tiyaaba moom dara dégg nga tey mën na dogloo ko mooy regal ko ci ñam wala ci naan waxtu ndogal soko defé rek dogal nga ko koram xabla yono bu defaan loppa dam allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kull shay'in an taghfir li yal ma ngi lay ñaan moo jéggal lu caaxaan seyir ma nga xam ne ëpp na lepp te yaa ko wax nga jéggal ma yil daan ñaan ñetteelu dégg-dégg ci ay yi mooy ne aay junla ji ko yalla noosee ni mu rafété ba isa salaka ibaadi anni moy lan dafa ñu lañu laaj yalla tabaraka taala hanni la wat moo laaj ci yalla du nekk jëm yalla ji mais laaj ci mbir ci mbiri yalla yi la la wala yuhituna bi shay'in la ma sha moo tax mu ne fa inni qareebun mu nekk tektal wane ñom sa'alu an ji'atil qurbi aw bu ñoom anam ak jigéen ak doon laaj laa ñu jëmm de dégg laa ñu jëmm ja benn ay wa yas'alunaka anil jibaali fa qul yansifuha rabbi nasfan yëpp yàlla mi nga am lu muy jàngal jaam yi ñeenteel dégg-dégg imaam ibnu taymiya nee na na subhaanahu taala wa taala kawe na arasam nga nekk aju fuglu mboolem mbindeefam yi nekk aji sirwaye ci lépp nek ak yeur jëm ci ñom mu ne kon nak lool bu nga xamne al iman bi annoo qaribun min qalq ab jam da ci wara a ne gëm ne yàlla ko jégué ay minde fam na ci la waxe qurbul maana lu wér moy ci ngay ho diko ñaan muy yàlla mu ne aqrabu ila ahadikum min unuq railati mo gëna jégué kenn ci ci dokk ak war way waxana mo war bu ñu ko di loxom laal war way mu ne alqa wala sunna dégg li jàngale ci qurb ak ma'iyat da qanti wut ak kawek borom taala ka taala ak kima minde moom yëpp nga xamne laysa ka misli shay juromel degg dégg-dégg bu ñu tëjee ne mooy borom taala ta'ala taala jonjooga ko ci wàllu jinsiya mooy wàllu rapport sexuel diggante ñaari way yi da ko firi firi bu fort firi bu am yar ak teggin firi bu ànd ak lutf ngir jàngal jaami yar ci yenn ci mbir yi nga xam dafa aju ci wàllu dégg nga sëy ak mbiram jigéen xam Abdullah ibn Abbas wax ko léegi na inna allah azza wa jalla karimun halimun yu kën ni yàlla ko tedd la ku lewet la ku baax la waxam yëpp day legaata moom ay jàmbu ne ko xott jaasi digg ba kon daf mel ne foofu la euh, nisbi ñu tënk ko foofu rek lu ci leer ci yàlla la yàlla na fay ko te ful ko te gërëm ko lu ci lëndëm ci ñun la yàlla na yàlla jéggal ñu ko li alkon làmboo ci njéggal ci mbaax ak baaxal ci lewet ak lewetal ci tedd ak terale ci sutura ak suturaale ci mucc ak le ci jàmm ak jàmmale ak aar nit wattu ko ci gàllankoor yi ak ndog yi ak finn yi ak musiba yi yëpp yal na yàlla atta ñi ci loole la yal na yàlla jéggal ñi ci barke alxuraan ak barke weer wi suturaal ñi yërëm ñi musañ ci gàllankoor yi ak ndog yi ak finne yi ak balaa yi gàtt fan deegu ñaaw mujj gu ñaaw xaweeku gàcce addina gàcce alaxira gàtt fan yëpp yal na yàlla musal musal ci mboolem jaam yàlla ñu àndatoon ci kaddu yi diiru weer wi yëpp xam naa fi li tënk kaddu yi nag tàggu leen bi beneen yoon incha allah rabbi lu ci leer ci yàlla la yàlla na ko nangu dafay ko duful mm. ko léppi moom leer la lépp ci borom xam wax leer la njub la lu ci lëndëm doon télé lépp lu ñu ci wax ñun sax su ñun lëndam la yal na yàlla faar ko jéggal ñu ko def ko mu yiw soppi ko def ko mu baax def ko leer te atte ñi te fañ te ful te gërëm ko di leen tàggu fii di leen jéggal te di leen jéggal di leen baal xaq di leen baal xaq di ko kullu xaamin wa antum bi xayrin at mu nekk rek yal yàlla def ñu bokk nekk si jàmm ñun ak yenn ba ila qiyamis saa ni ñu ngombalante fi ci adina si jokkalante ay kaddu di ci jëriñante di ci bégalante di ci leerloo sin diine le sin gem yalla di ci leere sin xol sin xalaat diko faxase sin fakki adina yeb yalla yalla dafal ñu bokk andako bir aljan yàlla buñ teqali ko yal na yàlla boole ñu mu taxabu na fi yi nga xamne bo ëllige ci ron at leen di keral duñ ñu tangor jant duñ ñu tapak sedd yàlla am ko mëna ko sen ko yalla yalla yàlla ñu defal ko leen jaam yalla yi nga ñu ci kaddu fi mo nekk ci adina sa wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء القادم بإذن الله